dalee nag jàmm ci xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméeri doomi àddama ñoo dalee ko ci lim gu ko fi jot am lu tollook ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn wax nañu tey am na juróom-ñett yu si ñàkkat seen bakkan lu xew ci wàllum campagne yu ñàkk yi ñenn ñi dañoo jàpp ne rek kumba am ndey ak kumba amul ndey desee am gannaaw ba ñu amee luñ si nemmeeku daal di koy fësal si bu ñuy yaatal la ñu leen koy gën a xamal danañu àddu jëmale ci mbirum viol ak menace de mort buy wutali kii di gannaaw aji nag eh, ku moom suite beauté moo ko feelu Ndeye Khady Ndiaye moom moomee nag eh, tey eh, ci talaata ji la ko attekat bi di Mamadou Seck di teewlu moom moomee sax soo rek du ñu bi waat këram daañu ko jàpp tëj ci kaso gi. njiital Pastef bii di Ousmane Sonko gannaaw ba ñu dindee malaanu kii laayam ajjuma bële ñu génn ni ki ëllëg ci àllarba gi rek la ñu ko convoqué ci noonu ne nag moom moomee Ousmane Sonko dana wuyu jëm du wuyu ji luñ ci mën a jàpp daal moo di jox na avocat wam diggal ngir mu décharger li nga xamante xamante ne ni moo di convocation bi Mame Mactar Gueye Jamra Abbé Jacques Seck ak seen ay ñoñ yu sol seen i ay dàll ngir waxtaane bi leen mbir wuutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr ngir ñu gis Adji ak famille am doon na jafe-jafe kii di Maître El Hadji Diouf sax nee na ñit ne ñoom ñoo ñëwee du ñu gis Adji Sarr la mu ca xam la yëpp ci bu ñu yaatal rek la ñu leen koy xamal ñu teg leen loxo samedi balee ñu génn Dame Mbodj ak Abdou Karim Gueye ak seen fukki ñoñ ak juróom-ñett daal dinañ leen bàyyi ñu ñibbi seen i ay dëkkuwaay Mame Gora Diazaka Sylla daal dinay àdduwaat si mbirum Ousmane Sonko si bile mbir di ko wutaleeg Adji Sarr yëkk lu mel ni xeme kii di Ousmane Sonko bile waaye nag ba mu noppee rek sa kaddu yi mu yëkkati la ay masseuse daal di koy rek weddi ba mu set daal di weer fang ki nga xamante ne nii moo di Mame Gor Diazaka mbirum Ousmane Sonko ba tey buñ siy wax danañ si jubali ca dëkk bu sell boobee di Touba ak rek li nga xamante ne nii Serigne Saliou Mbacké di doomu juróom-benneelu xalifu Serigne Touba bi daal dina koy xamle jëmale si kii di njiital Pastef Euh, ca golfe sud lu doy waar tamit la ñu fa nemmeeku ab salon ba nga xamante ne ni soin de visage la ñu fay def euh, la ñu dal di tëj teg loxo borom salon ba di Beva gannaaw rek ba mu ca raxee leneen mu subir ay intervention chirurgicale euh, woykat bile di Kumba la Seck daal di ne jóge ko Sénégal loolu yëpp bu yembee danañu si toftal xibaaru tàggat yaram ak mbirum mbër mi di bébé Saloum li mu ci gën a fës nees tuut bu ngeen taaxirloo rek ñu daal di faram Euh, mu ngoog euh, ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaar yi comme ni ñu ko tàmm di defee rek mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal euh, bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàccoo wàllum wér gu yaram bi tey junne doomi aadama ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak la ñu testé téeméer ya ñoo ca amee coronavirus bi ñeent fukk ak ñaar dañu leen wàll juróom fukk ak juróom-ñett yi di ay cas communautaire ñaar téeméeri doomi adama ak ñeent fukk ak benn wër nañ tey ñeent fukk ak juróom-ñeent sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na juróom-ñett ñu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganisee ñaari fan ci weeru mars ba tey di tamit di ñaari fan ci weeru mars mu am fi benn at euh, daal di nañuy euh, nemmeeku lu tolloo ko fanweeri junni doomi aadama ak ñeent ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar yu fi jot amee lii di coronavirus bi si ñoom ñooñee ñaar fukki junni doomi aadama ak juróom-ñeent ak ñeenti téeméer ak ñaar wax nañu lu tolloo ko juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo si ñàkk seen bakkan jamono ji lee may waxeeg yéen ñeenti junni doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñeent fukk benn ñoo fi amee coronavirus bi ci suñu réew mi di Sénégal ñu leen ci traité. Euh, lu xew ci wàllum wu ñàkk yi ñenn ñi dañu ko jàppee kumba am ndey kumba amul ndey euh, gannaaw ba ñu gisee ni ay VIP militant politique u APR ak seen i ay famille euh, ñooy jot si dose u ñàkk yi lee ci place ñu si am droit bokk si rek mag ñi ak ñuy wëyaale feebar bu ñu sukkandikoo sax ci enquête ca Médina ba soxna sa nga xamante ne ni responsable politique la deful lu dul dajale ay kuréelam yu koy soutenir ngir ñàkk seen i membres yi te si waxtu woowe nee nañu sax ñi xamante ne dañoo amee dialyse di def rekk la ñu mën a ngir mën a jotu ci yile ñàkk ca Jurbel tamit nemmeeku nañu ne euh, dañuy euh, politiquer ñàkk yile ndaxte nee nañu foofee ñu amagul sax ñeent fukki at la ñuy ñàkk rax si dolli ñu woyaaleewul it benn jàngoro. leneen ma du jëmale ci mbirum viol ak menace de mort buy wutale Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr gannaaw aji moomee nag ku moom Sweet Beauté euh, moo ko feelu euh, moom moomee di Ndeye Khady Ndiaye euh, tey jii si talaata ji la ko àttekat bi di Mamadou Seck di teewlu ñu koy toppee complicité de viol Ndeye Khady Ndiaye da dina yewut ay avocat a ngir assurer défense am bu weesoo maître Bassirou Balde Ndeye Khady da dina jëlaat maître Ibrahima Mbeng ak Ousseynou Gaye ñetti avocat wam yooyee sax gise nañu ni démb si altine ji ngir waajal nañuy défendre seen cliente bi eh, bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Ndeye Khady Ndiaye eh, bu ñu ko auditionné ni ki tey ba pare mën nañu koo jàllale ca kaso ga soo muy tuulee gannaaw ba procureur décidé daal di koy placé eh, sous mandat de dépôt te bu attekat bi toppee procureur moomee sax kii di Ndeye Khady mën naa fanaan guddeem bu njëkk ca camp la moom nag dinañu ko toppee complicité de viol incitation à la débauche ak rek prostitution clandestine yoon nag dal dinay soobu bu baax a baax fi mu ne nii si mbir muy wutale Ousmane sonk ak kii di Adji Sarr gannaaw euh, ba ñu auditionné Adji Sarr ba noppi convoqué kii di Sidi Ahmed Mbaye Ndeye Khady Ndiaye ak ay Aïssata Ba dina ñuy accéléré mbir mi daal di convoqué kii nga xamante ne nii moo di ndeyu mbill gi di Ousmane Sonko waaye nag euh, joxuñu ko convocation bi directement commandant bi daf ko jaarale rek si ay avocat wam euh, ngir ñu jox ko kii di njiital Pastef bi si noonu Sonko mu laytaayam ajjuma ba leen ñu génn ni ki ëllëg eh, bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba la war a wuyu ji eh, ci fàttali Ousmane Sonko xam ne woon na ni du wuyu ji benn convocation nga attekat bi eh, ci veille bu ñu dindee malaanu kirlaayam ndaxte nee na jaarale ko ci yoon ci bu bañee nag wuyu ji mën nañu ko jagle la ab mandat d'amener ngir rek obligé ko mu wuyu ji bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Euh, ba tey rek ci mbirum Ousmane Sonko mu àtteekat bi convoqué ni ki ëllëg ci àllarba gi avocat wam nag di maître Khoureyssi Ba patron wu section de recherche woo na ko téléphone daal di koy wax ngir mu ñëw foofee eh, caserne Samba yi Diallo ba mu demee nag dañu ko sant ngir mu décharger eh, convocation mu àtteekat bi si noonu avocat bi daa bañ laata muy xamal sax commandant Mbengue ne rek du décharger eh, boobule convocation te client wam bii di Sonko waxu si xalaatam convocation bi dal di jubaleeku moom ca kër kii di Ousmane Sonko laata muy yegg sax ah, ci yoon bi rek la jotee Sonko téléphone mu autorisé ko ah, ngir mu décharger convocation bi mu daal di koy def moom maître Khoureyssi Ba ñu daal di koy ah, delloo àttekat bi. ëllëg bu ñu convoqué njiital Pastef bii di Ousmane Sonko war a yemoo ko ñetti fan ci weeru mars atum 2021 dañuy fàttali la mbirum ancien maire Dakar bii di xalifa Sall mu ñu convoqué woon moom it ñetti fan ci weeru mars waaye ci atum 2017 ba tey bu ñu sukkandikoo ci témoin bu biral xibaar wi ñetti fan ci gannaaw yemoo woon nag juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 doyen àttekat yi daal di koy placé sous mandat de dépôt moom ancien maire Dakar comme nag njiital taxaw Dakar bi bi njiital pastef bi tamit ñetti fan ci weeru mars atum 2021 bi ñu nekk la ko wóolu li ni mel nag tax ñu samp ab laaj di naan ba xam ndax lii daje képp la moo Serigne Modou Bousso Dieng daal dina yàddu ci convocation gu Ousmane Sonko bi ci ab waxtaan nag bu mu sekk ak ñenn si suñu naataango yi la xam leen ni ñuy naan na Sonko dem wuyu ji yoon ay hypocrite lañu ba mu ca noppee la yokk sax si ay kàddoom ni Sénégal amul justice ca Touba tamit àddu nañu ci mbirum Ousmane Sonko Serigne Saliou Mbacké di doomu juróom-benneelu xalifu Serigne Touba daal dinay xamle ni njiital Pastef bi daa war a wuyu ji convocation attekat bi ba mu ca la ne nag résistance mooy révolte ba tax àndul ci li mel te mi ngi woo sénégalais yëpp ngir ñu bañ see wuyu ji ndaxte yàlla ak yonent bi yëpp kenn rek woowuñu si yoon boobee laata muy naan confrontation mënu la régler lenn te lu koy firndeel nag mooy crise casamançaise buy duré ni ba ñu toogee waxtaan la ñu déggoo ba loolu weesoo doomu El Hadji Bara Falilu bi ne njiitu réew mi xam xamle woon na si 31 euh, décembre bi ne bloqué na ay dossier ngir euh, jàmm réew mi ba tax na mu koy ñaan euh, ngir mu bloqué tamit dossier Adji Sarr beeg Ousmane Sonko bi lee ngir moytandiku fitna gi donte sax nee na soo fantalu la volonté Adji Sarr ci sujet plaintam bi Mame Mactar Gueye Jamra ak Abbé Jacques Seck ak seen ay ñooñ dañoo jóg sol seen ay dàll ngir dox ay di wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñaar nag gisee nañu ak Ousmane Sonko ba noppi waaye du yomb ci ñoom ngir ñu gisee ak Adji Sarr ak famille am ndaxte ñoom ñoo ñëwee sax fas yéene wu ñoo gisee ak Jamra ak Abéjac ndaxte nee nañu ak la ñu gàcc yëpp si seen ndodd doom ji dem demandé wu ñu benn médiation te àttekat bi képp la ñuy waxal ci li ni mel maître El Hadj Diouf tamit bu taxaw di défendre Adji Sarr daa bañ ba tëdd ci naaj bi ne rek soxlawuñu ay tànk jàmm yu si nit diine yi di rek ñoom ñooñee nañu yem ci diine gi tey rek avocat bi nee na amul benn sens te yoonu diine gi nekku ci ci bileem mbir te jéego yu ñu si bëgg a dox it doon na li nga xamante ne ni lu dangereux la rax si dolli day néewal doole yoon ngir mu def si liggéeyam ni mu waree bu ñu sukkandikoo ba tey ci journal bi di observateur masseuse bi bëggula gisee que fukki membre ak juróom-ñett yi nga xamante ne ni ñoo bokk ci collectif religieux yi maître El Hadj Diouf leen tamit kii di Adji Sarr du nangu benn médiation Euh, syndicat autonome des agents des impôts et des domaines daal dina ñuy addu ci mbirum administrateur Pastef bii di Birame Souleye Diop euh, mu ñu placé sous mandat de dépôt ñoom nag euh, ba ñu dénoncé li ni mel ñu jàppee kidnapping ba noppi la ñu indi ay seede ci kii di Birame Souleye Diop ne rek fukki at ak juróom yi mu def ci service yëpp musuñoo ko gis mu jàdd yoon te engagement politique am teewul ñëpp la jox cër si noonu nag la ñuy sàkkoo ngir ñu moo di Birame Souleye Diop mu ñibbiwaat ca këram te wëyandi ay activité ma ñu teg leen loxo samedi bi ñu génn Dame Mbodj ak euh, Abdou Karim Gueye xurum xàq daal dinañu leen di bàyyi démb si altine ji ci ngoon xibaar wi nag seen avocat moo ko biral euh, ci noonee Dame Mbodj Karim xurum xàq ak seen fukki ñoñ ak juróom-ñett euh, jóge ko nañu commissariat central ay waxtu yu néew nag gannaaw loole lañu ñu libéré tamit étudiant waaye itam membre FRAPP yi di maam usmaan Wade ak Amadou Sow waaye seen yeneen naataango yi ñoo ngi leen tee ba jamono julee may wax ak yéen étudiants yooyee nag nekk ñoom ñëpp ay membre FRAPP ñu ngi leen teg loxo àjjuma bële ñu génn ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru lu ñeel nag Saner ak kii di Clédor Sène ñoo ngi leen placé ba tey sous mandat de dépôt fukk juróom-ñaari lingeeru Ousmane Sonko yi dañoo dellu ca commissariat ba gannaaw ba ñu bénéficié woo ab retour de parquet maître Babacar Ndiaye nag mer ba futu la si def ne sax li ni mel doonul mbir ma nga xamante ni waroon naa yegg si tribunal ndax soxna yu jàmbaar yooyee ñu tee bëgguñu woon lu dul rek seeti ji njiital Pastef boobee di Ousmane Sonko mu xamle ko moom maître Babacar ya nu ma leen ko diggee woon rek laa koy dal di defee maam góor Diazaka adduwaat na ci mbirum njiital Pastef bi di Ousmane Sonko moo da koo dal nag bile yoon moom nag nee na nit da ngaa war a xam loo war a def ak loo warul a def ndaxte euh, doo yor li nga xamante ne ni moo di ñaari jéeg ca biir kër dem di tëdd ci ay salon de yu tuuti rax si dolli nga ne da ngaa a nekk ab président si noonu la maam góor a yokkee ci ay kàddoom ni suñu président kenn du gis ay xottam tey naan moom maam góor a jasaka mësula dem salon de massage te xamul luy massage ba mu ca noppee nag la ko ay xale yu jigéen de ko weer fang ci ay audio ya nga xamante ne ni daaju nañu koy biral di ci xam le nii kii di maam góor waxul dëgg ndaxte moom moomee rek xam lan mooy massage ndaxte nee ñu defal nañu ko massage lu benn yoon du saafu nan ko maam góor a jaza ko noppil balaa ñu lay weer ndaxte nee nañu da doon ñëw saa su ne ci seen salon woowee ba tey rek si mbirum maam góor a jaza ko mu ay masseuse démasqué ba mu àddoo ci mbirum Ousmane Sonko daal koy dal a jaza ko bu mu ànd ak jet setteuse bii di Amina Sallé di fësal ngir rek euh, weer wa ila suli ay mbootu ki nga xamante ne ni moom la ñu ne moom mooy ennemi maanaam noonu njiital Pastef bii di Ousmane Sonko ñëpp nag di. coow boobule vidéo xale bu jigéen bi si boppam di euh, Amina Saleh daal dinay tontu ñoo ñooñee di euh, critiquer Diazaka euh, dal di weddi bépp relation amoureuse bu ñu ne dafa am si diggante ak maam góor mu mu ne nijaayam la moom moomee nag Amina ba bataaxal rek la fësal di si xamle ni xamul rek ci ban làkk la war répété ni maam góor Diazaka xaritu waajuram bu jigéen la depuis ñaar fukki at ba mu coonoppee la ne Sénégal nag nii rek vidéo ba nga xamante ne nii ñu ngi réeroon lépp ci ay kafoore ah, dañuy toog rek ah, ba jëmmi jamono ñu daal di koy fësal ah, daal di koy rek transformé maanaam ma di koy soppi ngir yàq doomu aadama mu xamle ko moom Amina Salé Fatou Thiam daal di nay xamle lu doy waat ci Ousmane Sonko moom nag nee na ba Sonko génnee ni daa feebar ne daa am fu mu dem war a fay deux cent mille francs def nañu sorti ne amul fenn fu ñuy defee massage deux cent mille ndax si dolli Sonko daal nay toog ne lu muy am jamono mu doon fayeeku impôt euh, di luy firndeel tamit ni kon am na lu mu fayee massage deux cent mille boobee euh, ba loolu weesoo Fatou Thiam ne Sonko nee na it euh, feebar moo ko yóbbu ci salon de ba noppi toogaat ni feebarul dara jotu ko di ay wax yu wuute yoo nga xamante ne ni tey na xelam moom Fatou Thiam ci noonu mu ne Sonko sax mooy kan ba ñuy dem di attaqué MFDC ngir moom te it nee na ba mu seetaanee keroog Sonko muy wax dafa gis ka nga xamante ne ni dafa tiit ka nga xamante dafa jaaxle waaye itam ka nga xamante ne nii xam na la mu def waaye waxu ko ñii di sénégalais yi touche pas à ma di rek ñi nga xamante nii ni dañ fee toog ngir xeex ak ak yëlleefu soxna yi dañoo taxaw di défendre kii di Adji Raby Sarr ñoom nag nee nañu li xew honoré wu leen benn yoon te dañu waatal peuple sénégalais bi ne dinañu taxaw bépp soxna bu ñu sàkku te nekkul ci coobareem te fas yéene wuñu see teggi seen tànk ci noonu ne la ñu xam leen ni képp kuy jigéen moo xam xelam des muy rek jaay boppam wala leneen am na ay droit wam waa touche Mansour ne nañu tamit aji musula déplacé wu dem kër Ousmane Sonko au contraire Sonko moo ko doon fekk ci bërëb bu liggéeyukaayam tey naan it politiciens yi nañu dem régler seen mbirum politique feneen bàyyi bile mbir nga xamante ne nii lu privé la te kenn rek mënul te yoon def liggéeyam rax si dolli mbirum viol duñu ko négocier ba tax na soxlawuñu kenn di si dox ay jéego ngir waxtaanee ko ñu daal di nëpp nëppal gassul ndaxte lépp dafa war a leer ñu heure daal dina ñuy biral ci réseaux sociaux yi vidéo yu Adji Raby Sarr mujjee def ci yooyu les vidéo nag ñoo ngi si nemmee ko Adji sol si ay yére yu sexy lool yuy génnee formam bi yëpp rek waaye itam yaramam bi yëpp ci biti comme nu ngeen koy gisee noonu mel ni rek euh, jekkaayam wi lay wone di ay vidéo yu sexy lool ya xamante ne nii sax da ngay gis weenem yëpp ci biti ñu dindi malaanu kiir laayam Ousmane Sonko xamle woon na ni di wuyu ji àttekat bi taskatu xabaar waaye itam producteur bi bi di Alioune Ndiaye nee na Ousmane Sonko am na droit résister waaye yaakaar na ni euh, kii di Sonko euh, amul ay moyen résister ci ab assaut état euh, ci noonu la xamle sax ni violence légitime ak légale moo ngi ci ay loxo ñañu jiite nga xamante ne nii am nañu ay pouvoir yu Sonko amul te ay partisan wam mënuñoo opposé wu mukk rek ci ñu arrêté ko ba noppi jébbal ko bi mu xamle ko moom Alioune Ndiaye ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz damay jubali ca Golf Sud Sud foofee nag ab salon bu fa nekk di def ay soins de visage ñu naan ko Beva Beauté la ñu dal di tëj ràpp ba noppi dal di teg loxo borom salon boobe ay atam toll si ñaar fukk ak ñeent ab commercant nag bu ñuy wax GS moom moo bëggoon a dund ay moment d'intimité euh, ci ab salon de massage si noonee la ñu ko diggalee foofee ca Golf Sud euh, ci Beva Beauté mu dal di rek euh, woo ki nga xamante ne ni mooy patron ba mu xamal ko ni soo ñëwee rek dinaa la dund loolu ne téeméer loo du la fàtte euh, ci noonu waa ji daal di fay dem ba mu yeggee nag euh, la dal di summeeku xale bu jigéen bi tàmbale ay mbiram euh, ba ñu demee ba ci biir téléphone commerçant bi daal di sonné Beva nag profito si la muy téléphone daal di koy filmer ba mu ñibbee mu daal di koy rek xamal ni filmer naa la ak yaramu neen daal koy yónnee vidéo yu bëri sax ne ko bu ko joxul benn million mu yónnee ko aadamoo mu daal koy bidal ba ñëpp jot si commerçant bi nag daal di tiit jot koo yónnee 400 000 francs waaye xale bu jigéen bi bi tamit ñokkali di koy laajati ab iPhone 11 Pro Max mu dal di nangu sax ba wax ko ne mu ngi koy jox livreur mu indil ko ko laataa loolee nag la ko commerçant bi nettali benn xaritam kookee diggal ko rek ngir mu porter plainte mu daal di jubali ca division spéciale de la cybersécurité ñoom ñooñee ba ñu defee seen saytu ba noppi la ñu dal di dem teg loxo ki nga xamante ne ni moo di Beva ay atam toll si ñaar fukk ak ñeent di borom salon boobee di Beva Beauté ca Saint-Louis euh, lay euh, jubali euh, foofee nag benn enseignant bu ñuy wax AAD la ñu dal di joxoñ baaraamu tuuma ni dafa sàkku benn xale bu jigéen bu ay atam toll si fukk ak benn tey jii sax lañu ko war a defeere parquet xale bu jigéen bu mu violé sax limal na enquêteurs yi la nga xamante ne ni moo nekk lépp ci néegu jàngalekat bi te bàyyiwul te benn détail mineur bi nee na sax kii di jàngalekat bi da ko doon woo su ne néegam di laal awraam yi di koy frotter si sexam wi ba éjaculé euh, su paree daal di koy may téeméer maanaam 500 francs leneen Adamo fësal bés yi ay vidéo wam yu ñaaw lool ba ñëpp jot si euh, feccikatu Sidi Diop bii di Ndeye Ndiaye Banaya mi ngi wone ni rek mi ngi xàppi di dundu mbëggeel ci ab vidéo bu mu def andi seek Maguette daal di koy biral ci lii di réseaux sociaux yi gannaaw ba mu subiree ab intervention chirurgicale def na ay weer Coumba Gawlo Seck daal di ne jógee ko Sénégal gannaaw ba mu décidé dakkal di musique bi euh, xibaar wi nag Ndella Madior Diouf moo ko xamle ci seen émission ba ñuy amal gannaaw ba mu xamle ni euh, diggante nag Kumba Gawlo weekend bi yëpp laataaw mi jël vol ba mu ca noppee nag euh, la ne mi ngi ñaan ngir mu ñëwaat gaaw ak wam noonu laay xuusee ci tàggat yaram bu ma koy tëjee ak mbirum mbër mi di bébé Saloum moom moomee la ñu teg loxo ngir traficu mercure di la nga xamante ne ni dañu koy jëfandikoo ngir defar ay faux billets bu Kër Massar aadama yu bokk ci ab bu buy trafiqué mercure bu ñuy jëfandikoo ngir defar ay faux billets si noonu nag euh, la ñu rek euh, jàppee ñoom ñooñee ca diggante Malika ak Thiaroye euh, mu bokk si mbër mi di bébé Saloum mercure beeg oto ba ñu doon jëfandikoo ngir transport bi yëpp daal dinañu koy saisir takk der yi tegoon nañu tamit ay trafiquant wu faux billets ca maquette bu Thiaroye fekk ak ñoom lu tolloog 1 million 200 mille lépp rek di ay faux ñoom ñëpp nag euh, ñoo ngi leen tee ca gendarmerie bu Kër Massar ci waxtu bu ñuy wëyandi lii di enquête bi.